salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie duñu topp suñu tutoriel te doo ñëw ci lu am solo bëgg leen présenter benn navigateur boo xamante ni bu ama am solo la bu leen di dimbali ci lu bëree bëree bëri voilà benn bi dana yéexal sa connexion maanaam sa connexion du gaaw jeex booy connecté wu si navigateur boobu beneen bi dina tax pirate yi ñi nga xamante ni dañ lay topp boo nekkee di connecté wu duñ la mën a suivre duñu xam foo nekk tey voilà wala changer sa adresse bi ngay jëfandikoo voilà. léegi balaa ñoo ñëw ci nuñ koy télécharger moo war nañ ko pare présentation bu ndaw bu gàtt voilà euh, présentation moo nekk ni interface bi boo duggee brave point com b r a v e point com voilà boo duggee moom la you maanaam yow doo produit moo nekk nii boo télécharger nga nga cliquer fii nii fi ñu def download bref voilà boo gisul fii nii dinaa leen wan benn méthode boo xamante ni moo gën a gaaw pour nga télécharger bref léegi ñu ko continuer vidéo ba pare voilà léegi ñoom lan moo tax Brave man man ma taamu ko ci navigateur yëpp bis njëkk mooy moom maanaam open source la bu la neexee yow sénégalais wala yow africain nga am sa propre navigateur Brave voilà loolu rek tax nañu war ko utiliser beneen mooy breve day tax page web day gaaw Google Chrome moom moo dàq lekk ci connexion kon yéen lu ngeen xaar ci télécharge Brave gis na Google Chrome ni muy def sa navigateur voilà bis topp bis yi ëpp solo bokk na ci mooy publicité yi nga xamante ne day ñëw ci. Euh, navigateurs yi wala site web bi yenn saa yi da bëri ñu lay jox ay publicité publicité yu dul jeex léegi loolu pour nga mucc si nooy def télécharger bref mi ngi nii Adblock gis nga 4500 Adblock ci man bu ma commencé utiliser yàggul te bloqué na ko la jëlal la leen li mu wax mu ni HTTPS yi maanaam am na ay sites yoo xamante ne utiliser wuñu HTTPS waaye ñoom dañ koy mise à jour automatiquement bi ci ëpp ëpp solo mooy block ads. and trackers voilà mooy ñi nga xamante ne ñoom seen métier lépp mooy lan xool utilisateur bi mooy kan fan la nekk tey suba fan la nekk tey dem na restaurant suba dem na fii bu ko defee information yooyu ñu jël ko bu nekkee koo xam daa noonu ak yow bu la bëggee rey nu muy def xam na fi nga nekk kon day dem rek rey la voilà kon utiliser leen bref tey léegi pour nga télécharger ko xam naa ni yëpp yàkkam nañ ko voilà léegi pour nga télécharger ko yomb na da ngay ñëw Play Store wala bu nekkee iPhone nga utiliser tamit mën nga dem App Store nga xool nga bind fii nii bref bref xawma brave voilà bref mi ngi nii léegi bref moom moo jiitu si kaw nga nga cliqué gis nga xàmmee image bu baax bopp gaynde la am euh, rouge blanc voilà nga bës fii télécharge man télécharge naa ko par damay bës open rek mu tijjeeku gis nga bref mu ngi nii bref gis nga neex a utilise la def te day tax nga da lay sécuriser bu baax a baax mbokk yi doon seetaan Xarala académie yaakaar naa ne jariñu ngeen si vidéo bu baax di leen wax ngeen abonné chaîne bi daal koy partager ba beneen yoon ci beneen tutoriel merci